kaw wax na ko dina ko yóbbu ci uh, paay yow déedéet yow sa boobu dañ koy commandé yow fu loolu Ali Express la ñuy woo wala Ali Baba foofu lañ koy commandé. very soxor very soxor. ah dina gën a soxor kaw ñu daas ko ay weer. Ah, yow faa ngam baraalong bu yeboo loo mën ci sponsor wut ko. Keba Kanté mii woo ko nga teel koo wax say problème. dina ko anesthésie. anestesi magum dem dia nag ya, dia dana ah bu fekkoon ni ba nga bëgg sa tollee la nga raawut waaye nii moom dinaa gis dërëm ak hmm. hmm. hmm. man gak cee dee de wow American begul dee ah wóorul parce que doo xale doo balal ko man luk sama yon, malay balé man dama def mais dama lay rek ay risque la. waaw ay musa Dieng yow non amul lo expliquer duma la bay nga wax waaw <laughs> non li ma la bëgg wax mënu mako wax. waaw ah, non damay bàyyi ba nga ñëw ak jàmm waaw yàlla baax na yàlla baax na baal ma déglu la rek naka euh, mintu ba ñëpp a ngi ci jàmm rek waa baax na dinaa la xaar dinaa la xaar allah waaw ok incha allah jaajëf Washington ku la doon woo ñoom kii. kan. Mm-hmm. sama benn xarit laa doon woo Moussa Dieng. ñii woowuñu la. ah yow tamit damaa jaaxle de. loo jaaxle. ci magum jëm. Mm. dem ba tool nii mu tool. ñu ne dañ koy yóbbu ah am na loo xam ne sax man mënuma koo wax. loolu bu ko def problème dégg nga que fii gis nañ fi lu nekk gis nañ fi lu ne xëy na âge bi la moo la jaaxal mais yàlla baax na. wala da gis leneen. laay man sëy bi yaa ma ci téye te ndogal dafa gaaw te kii americain la nii mu dofee leer na ma ne ay mboqam ñoo ko gën a ràkkaaju na ma may baat mu dem te gis nga lii ñuy def bu ma sañoon nga woo kaaw ak dërëm ñu indi ko mu dem ci ay mboqam ñu defal ko ko ndogal dafa gaaw ah mais yow kaaw ak dërëm fi mu toll nii dañuy toog rek di lijjanti demaguñ de dem nañu am na lu leen waa ji wax ñu yóbbooguñ ko mais léegi déglu rek léegi ñun nañ ci jaamu yàlla lan ngay ragal. waaye nañ ci jaamu yàlla d'accord yow da bëgg ma toog ci sëy bi jaamu ci yàlla. waaw waaye kaabi bi dafa critique. nu mu critiquer lan ngay ragal lan. waaye magum jëmm dem ba tool na kii yam kenn musu koo. kii yow tamit mais loolu ci magum jëmm. mais loolu am na bu dee xale sax xale sax laa lay wax nii day nu muy mel ci xale sàkkaatuma magum jëm man loolu métit boobu mën naa koo nekkee. déedéet mais loolu mais loolu lii lii lii nii dal américain. Hmm. mais dal na ko ne am na. xëy waa léegi moom kan mooy doon salbeem. ah ñu bàyyile boppam. ñooy doon salbem ah waaw muy diree ko fii ci biir kër gi nit ñi di ñëw naan jëkkëru sasaad ak ci mbedd mi di yelwaan comme ni xale yi di def noonu la mag di def mais cosaan la loolu aada boobu faaw nga def ko da ngay dugg ci kër yi ah, comme ni xale yi def di di kii sa jàllaa bi nii njullee ngi yelwaan laay man loolu du ma salbe yi tee yet yi di wax ko ah. ñu naan jëkkëru sasaad man loolu du ma ko def de ah. du ma ko def de na ma may sama baat loolu du ma ko def de waaye ni ma toll ci digg dëkk bi sama tour fi mu egg oh, ñu naan jëkkëru sasaad nga ne njulli la ah waaw te kaaw ak dërëm am nañu fit goo xamante ni jour buy simbi dañ naan dañuy woote. yooyu ñuy def kasat diw man gis nga eh Ablaye man yow da ngay ree yow lii lu tuuti ko jëlee te man man lii xajuma ci. xam nga man ay kasag ak yooyu Amérique yi ñu kasagal ko <laughs> woo woo eh, nga ñoom vieux baak ak ñoom mën way gis nga yow Diop Fall. Ah, sëñ yow Ablaye yow da ngay fo. <laughs> rek la mën a way. ak kam man lii bu mu ko yëg de. ah dina ko yëg moom kas événement la. laay yaa ngi def lu garaaw te ñoom bu ñu ko yëgee ay soutien la ñuy bind ak invitation <laughs> wuti xaalis américain la ñuy kasagal. <laughs> laay balaa boobu na ma fase na ma fase. Eh, dama lay tooñ rek nag yooyu bu ci am mais nag tamit wax dëgg yàlla nit boo duggee ci góor pour seeg moom bu nekkee ci métti da koy jàppale bu nekkee ci. bànneex ngeen bokk ko lii du métti waaye lii ay mbokkam ñoo ko tey. waaw d' accord mais tamit ay mbokkam ñoo ko tey nan la xale demee ba nekk góor góor yàlla nekk xale waa ba toll ni mu toll kenn dugalu ko néegu góor. waaw léegi lii la yàlla dogal ci ñun la tombee nañ ci jaamu yàlla moo gën ñu koy bàyyi xamul dara yow xam nga ne américain xamul dara léegi lan nga bëgg ñu def. sant yàlla ci lan laa dugg. lii du dara du dara lu ñuy def la comme ñi ci ñëpp góor yëpp. jaaree man man man est ce que tooñu waliyu lii nattu la de. jëkkër Chacha bi njulli la lool. ay eh, laay bu ma ko wax waxati de loolu moom kafewu ma ko waaw loolu kafewu ma ko de. man de ñoom kaaw rek laa ci seet bu ñu naree dugg fu ñu dugg ne jëkkëru Chacha la dañ moom la ñu yelwaanal njulli la. laay li nga may wax neexuma de. dañoo mën a wax bu la yeboo bul dekkoon ne seen kaw bu la yeboo bu leen dépassé bu leen wax wax ju naqari parce que fi ñu la téye moom kenn mënu ci dara maa la wax lii. américain bés buy simmi nag ba nga war a consommer seen mariage waa ami aaw dinaa la demal kay man kay solu naa ba pare wuyu ma man xam naa ne nekkoo Sénégal yow loo fi mës a am man maa lay demal yaa ngi dégg léegi man xaalis bi jot naa ko léegi dinaa la demal ca xew ba su ma fa jógee sax dafa am beneen xew bu ma war a dem dama dama lay joxe sa ndawtal rek su ma la joxee sa ndawtal damay waññeekuwaat waa te nga yónnee paas taxi bi nag ami aaw yónnee ko waa thế có nuyul mà ñoom Adam, ñoom Adam, namu naa leen sama mag yooyu nuyul ma mà dégg nga waaw à ma mà ak sam papa nuyul mà ñëpp ok mang à, yow maa ngi jóg léegi dem aaw lần nữa. wax are lan la foo jëm dama am xew xew waaw sama mag bi nekku fi moom la yêu bún đậu talam. yow warul am xew so man rek xew man rek xew la. yow man am problème. waaw am yow kay yow yow kay ëpp nga xew. so that's why you you have to stay here fu dem fan su jëkkër feebar eh, xam laa wax yaa ngi may bëgg a neex. su jëkkër xam laa wax. ñàkk fayda bu bëgg a dee ponkal gu tool na yow yow lii la dal lii la dal yow foofu yow yow yow yow yow waroo wax de. ndogalu yàlla. ndogalu yàlla wala ndogalu say say parents. man sa jëkkër. et eh, xam laa wax. respecté si jëkkër. respecté wu ma la. boo bëggee ku la respecté da jox sa bopp res bu ma taxaw wax damay génn fii léegi taxaw weer la ponkal bu tol na yow xale yi ndaw yi soog a judd sax kenn waxatu ko yow ponkal bu tol na yow desul lu dul jël sa jabar gis nga eh bu ma taxaw wax li may réccoo ah. but American citizen boobu amul problème. but fii Sénégal people bi. waaw ndax da def sa bopp tubaab. dangaa def sa bopp tubaab moo tax amul problème ñun fii Sénégal lii sobe la ci ñun sobe baaxul maxalla doo julli doo woor man li ma dugg nii man man est-ce que man li ma dugg xam naa ko man man man ci ban jëkkër laa dugg man man oh. américain ngir yàlla munoo ñibbi dem toog seen kër non non non ngir yàlla munoo maa fase nga dem mm, never don't say fase say astafurlah say Chicha si so yow war na jàppale. man love you ma la dina jox xaalis man bugguma bugguma xaalis takk jabar munoo ci moom dara ponkal bu ne lëng naa lii laa bëgg weer ma weer ma te fekk na yow yow yow américain xam nga lu ma bëgg jógal ci sa bopp nga dem ci say mbokk lañ la war a def ñu def la ko ñu defal la ko sama yoon nekku ci baay du eh xoola ñoom kaaw duñ sa baay ñoom dërëm duñ sa baay demal ci sa baay bi la jur lim la war a defal mu defal la ko yaa ngi may dégg. bët bii luy bët bi hmm? bii métti na ragal na ko ragal na ko ragal na ko. ah ragal na ko. yes. dinañ ko def nag. bàyyi la wax na dina ko jàppale bat uh, dem na ko ci benn paa fii wax na. xam nga bu dee xale. xam nga bu dee xale ciseau la ñuy jël. waaye yow jaasi la ñuy jël wala. astafurlah si astafurlah Chacha si astafurlah am afraid <laughs> oh. yow lan la. ragal nag. <laughs> Ah. but you have to accept it like this. xam nga wala lay nii damaa bëgg buñ la koy def ma fekkee ko ndax yow kala ko nar a kala ko nar a goral kookoo nar a am problème yow duñ ko dagg sax dañ koy gor. <laughs> Oh. Aïcha dina ko métti loolu. <laughs> bat bat bul dem fenn toogal. toog man may dem doxi samay soxla. toogal dina la ko jox man damay dem doxi samay soxla yàlla mën naa def sax ma gis beneen jëkkër. non never never never fan. Yo luma ma lay doyee. dinañ ko faj. kañ nga koy faj. ci ci wëj bii dinañ ko defar. waaw baax na de ma bu ci jaasi jaar wala semi ding ma abal. maa ngi dem te ñoom. dina ko faj après dina ko ñamal. fajul ba pare. oh African traditional African traditional oh very hard very hard in USA soxlawul dagg ko def ko def ko noonu ko oh I'm afraid. waaw comme wax dëgg yàlla. foofu ngay gis noonu waa ji bi mu ñu waxee dafa ñu ne bu doon xale la. boo ko garaawul. mais comme mag la dafa laaj ay code. moo tax nee na du yomb daal. waaye nag ñun ak lu mun a xew. comme dërëm moo ñu fa yóbbu. Mm-hmm. moom mooy jël responsabilité eh, eh, bi. Eh, lu xew xam ne. ah saw saw saw bul dugal dërëm. bul dugal dërëm. Ah. maak yow noo fa àndandoo. maag yow noo xamandoo waaj xam nga li may bañ nag li may bañ mooy ëllëg bu affaire xawee difficile am ay difficile ak yooyu ñu ne dërëm moo nu yóbbu ca waaja loolu laay bañ maag yow noo fa demandoo ñoo xamandoo waaj dañu ko boole ñu dem fa waaw bu bu ma roof roppi sa bopp. waaw léegi yow bu fekkee dañu la nga yow yaa ma wax. waaw waaw am na ku ñu may wax fii. waaw nañu dem ñu wax ak moom. waaw ñu dem si moom. waaw nga wax boo muy wax ni di wax booy wax ne am na koo xamoon xam na ko. waaw ah. kóllëre bi kay seen diggante. déedéet. Ah, ah yow yow ah, yow yow yow yow warkat nga de. ah. yow lii lan waxante woon bi ñuy bi ñuy dem foofu. waaw waaw waaw may leen ma pour rek moo tax. waaw waaw bu ma dugal. waaw may leen ma. fan ngeen dem ci Barbosa. wala ci Barbosa la nu dem. Ah, ah, ah, Barbosa boole am kum nu boole. yow yaa xam Barbosa. waaw waaw kii maak moom ñoo doon wax docteur Yves. Yves yow léegi ci Barbosa. ngay dem Barbosa lay wax yaa wax Barbosa. moom moo ma wax Barbosa. ne ma Barbosa une intelligence la. Barbosa def na fi lu ne am na ñoo ko boole. waaw saw yow yaa toog. mais man maa toog man maa eh, kay. Eh, eh, man maa kay. dërëm ragal. non ragaluma man xam naa ne kii nu ci ku ñu dem mën na liggéeyam. waaw waaye bu ma saraxe. waaw mais yow mais aussi. saraxe yow bi ñu toogee bi ñu toogee yaa ne xam nga Barbosa mën na. man maa ne xam naa Alain Barbosa. waaw mën na liggéeyam. bi mu demee teg nañu ci ay conditions yu baax. am kum nu booleel ku war a. defar yëf yi defar yëf yi waaw ma ne leen léegi yow ak lu mun a xew. waaw yow yaa nekk responsabilité. waaw loolu boo ko waxee day mel ne daam luy xajam ci suuf. waaw léegi dara xajamul sax. léegi xam nga luy problème bi léegi comme demee na nii léegi man maa jël sama responsabilité ñu ànd fa ma toog waa ji toog. ma mhm. wax ak moom. ñu xam lu leer parce que du ñu jël risque. ah parce que kii du xale de. non xale kay. non li li ma man li ma gis no war koo ne ko tëppit lool du ay caaxar foog gisee loolu. laay laay la laa romb la ma def romb sol ki la. Ah, moom waa ji oh, wax na ko ah, sax. waa ji euh. nee na affaire bi yombul de day ah, jël taa rek bi ñu dafa tiit day jël taa saa yi koo ni bu dëj ngeen day jël taa de day jël de man la ko di nga moom ndax jaar na dëkk bu nekk jaar na foofu wayaasi na foofu dem na Amérique dem de. Amérique ko oh, parce lu ma lay xamal jot yëf yi man man jàpp bi rek laay xalaat. waaw américain fu mu fitu ko. parce que day day laaj ay gars yu ko téye. ah il faut ñu garder tamit di ay garde mën naa nekk de ñoom Bacca Mbow gars yi am nañu doole waaw yooyu. ah gars yi am nañu doole recruter leen ñu ñëw il faut ñu ñëw. ñoom Ablaye ñoom ñëpp faaw ñu ñëw. ñun ñaaw ngeen làmmiñ. ah non yéen li li jaral. jàmm rek la ñuy wut de. alaay jàmm jël si Casamance rek la ñu soxla de. alaay alaay. jàmm jël si Casamance rek ku dee ca marché ba. ah yaa tàggee sa yaa tàggee sa bopp. abalaay. Ah, américain yàlla na ko yàlla sutura. amiin amiin yërëm naa ko trop. amiin yërëm naa ko trop. waaw mel ni yéen a ngi ciy réglé waal seen problème da ngeen ko mere de. ah yéen da ngeen mere américain de. <laughs> moo ñu tooñ ni nii kay fi ñu ko téye dafa baax américain moo ñu tooñ <laughs> waaw baax na léegi léegi après dinaa xool ban kii la ñuy dem parce que mu ñu bañ ko yàggal ah loolu boo ko yàggalee du baax waaw américain mu ngi bëgg a def amul problème baax na ki en tout cas daal ki war a dagg mbir yi moom taxaw na moom waaw ki war a dagg mbir yi moom taxaw na moom moo dagg bu aada. bu ah. aada ngiri <laughs> moo ko ah, ah, yooyu bul waa bul. aada ngiri aada boo saa dagg ay moo ko dagg moo ko dagg. Euh, dagg aada ah, tamit yegg na dagg de. ah barke ah daa mat un mois. <laughs> ah waaw waaye nee na noonu la ñu dacca bu aada de. <laughs> aada ngir la ñu dacca moom. ale balbojaare la man la ñu dacca bu aada. bu ko naree dacc américain. dañ koy bàyyi. hôpital ba la duñ tëj. <laughs> waa yow. dërëm foo demoon. yow yaa ngi nelaw. sonn. <laughs> sonn ak nekk ci mbirum américain mi rek fi mu ne nii eh, ca ca hôpital balaa jóge eh, eh, seeti ji woon ki ki ki ko war a dagg. dagg lan. ah ah ne ci ay mbiram rek yow xam nga li xam nga li xew lépp. waaye man nag tey laa waaru. waaye yow américain mi yow jàmm dal na ko. jàmm kay dal ko. waaw nag man man nag parents yi léegi yii nag léegi nag mbaa jàmm. ah waaw mais nag bokkul bokkul nag bàjjen américain xam nga ni du du sénégalais du sénégalais américain lañ ñoom est-ce que ñun suñu aada nin koy defee ñoom xamee nañ ko noonu. mais moom ah? eh, moom nee nañ papaam jullit la. waaw. wax kon yaayam la. mais bàyyam kay moo war a jël ay responsabilité ci ah, doomam euh, euh, tubaab bi nag xamul lool de yaay yi ñooy jël ah. responsabilité yi ba bàyyi topp ci ginnaaw yaay ñoom aada yi genre aada yooyu la ñu yor <laughs> eh, ñuy nu ñuy jëlee suñuy responsabilité ñoom duñ jël yooyu de fi ne daal ci loolu la ñu nekk maa ngi ciy dox di ci wax seeti jinaa Alain Barbosa Barbosa ma ma waaw Jires moo moo ngi hôpital Saint-Jean de ji seeti ji nañu ko expliqué nañ ko mbir mi waaye daa lu ci ne mooy ci boppam ah, américain mbiram daa doy waar daa weesu waaw daa weesu mbiram moo ëppi moo ëppi loxo ah, dafa ëpp loxo nag app loxo ban ko waree def dafa yàgg nu ba ba mu toll fii nu koy def fi ne day laaj ay risque yu bari te faaw mu def ko <laughs> <laughs> bu ko deful du lii de waaw américain nan la papaam mën koo yor ba mu toll ni mu toll ponkalum yàlla jëm nga bëgg koo jël naan da nga koy xarfal yéen risque yooyu yéen yéen a koy jël xam naa yaakaaw waaw yow yow américain bu xaraful nu muy def buñ lay may soxna da ngay xaraf de da ngay doon góor parce que fek xarafoo dañ leen dugg doonu goo góor dégg nga fekk xarafoo doonu góor suñu aada buñ lay may soxna da ngay xaraf heureusement c'est ça euh, euh, teel naa gis loolu teel na koo gis waaw léegi Gérés lu mu ah, ah, ah, daal nee na. Mm. mën nañu koo def. waaye ay risque nga ca. <laughs> ay risque nga ca de. waa te it buñ koy def ay ponkal day taxaw. maximum maximum maximum dix huit ponkal nu taxaw ndax américain du ko ndaw. ñu njattu ko. <laughs> ñaddu ko. summi ko. teg ci table bi téegal xoonam <laughs> coow li jeex. <laughs> ay lay demee de. yow dafa naqar xool nga ah, américain yi. Ah, ah, moo toogal foofu. Alain Barbosa de nga cay dox moom moo nga cay am na it kum ñu booleel. waaw fi mu ne bi fi mu toll fii rax de. Hmm. ni ngay waxee nii. xarfal kese nga mel ni kuy bëgg a. dama am lu ma metti parce que wax dëgg yàlla. bu xarfoon ba léegi ñun suñu am lu nu dëggalante woon ak moom loolu sotti na fi mu ne nii ñàkk xarafam bi eh. ñun suñuy mbir da cee boole kew waaw looloo ma métti loolu la kay ah. moom yi nii moom nii yoo ah. koy waxee non am na lu ci bu ci intérêt amul woon du ci ŋaang de bu ci amul woon du du ma ca yàbbi te fi mu ne faaw xarafal am ñu xarafal xaraf xarafal faw mu am xarafal faaw nu xarafal Alain Barbosa kay nee ko lo ci taxaw ma lo ci taxaw doy ye jambar ko ku baax a ngi noonu nag taxaw nit kooku kooku mën taxaw nit man lim ma taxaw rek yalla nako yalla fay amin ak man mi waaw ko dal ci carton yalla ak mbaaxam ni ma taxawoo ci ci ci ci ci ci américain mi mhm. ngir nu dag awaram yow tamen nak rafetal ko nag eh. yalla na la eh. yalla na la ko yalla fay yow rafatalal wax ji nag yow li lan ah, yow la di nga bëgg ñu wax awra rafet na di awra rafet na parce que mënoon naa wax lu gën a garaaw lool waaye awra rafet na te nit mën na koo dégg awra rafet na nee naa ko daal coow li coow li daggal nanu dagg awraam mënul daw sa mayn toog bañ a cencoo time yéen yi lañ koy defee eré bi si suñu jàpp defee